Euh, jërë ngeen jëf mbokk internetu Firi Info ba tey ñu ngi seen émission sama commune ñu dalal fii boo xam ne ñëpp xam nañ ko si commune bu Saly Escale ba tey rek ñu nekkane si commune bu Saly Escale euh, ñu ngi dalal suñu invité ñu na Touré nekk si commune bu Escale nekk responsable politique ci commune bu Escale fii si département de Koungheul kon dañuy def rek loolu jox ko kàddu gi mu nuyoo mbokk internetu Info bu ko defee ñu dugg ci waxtaan wi kon. monsieur Arona waaw salaamaaleykum Hadj Daouda comme ni nga ko waxee di commencé suñu nuyoo ci asalaamaaleykum di nuyu waa groupe bi yëpp groupe Fini Infos di leen souhaiter euh, maire ba di leen wax bonne et heureuse année. ñu génn ci alhamdulilah alamin aussi ak liggéey réussite totale. ak santé ak seva yàlla boole ñu ko defal defal ko groupe bi yëpp. defal ko département bi. particulièrement defal ko sunu commune ak Diawla. merci beaucoup comme ni ngeen ko déggee mu wax ko ñu ngi dalal tey kii di xam ne mooy monsieur Arona nekk ci commune bu Saly Escale bala ñu xuus si waxtaan bi rek dañuy nuyu mbokki internet Firi Infos yi suivre Firi Infos partout rek euh, mais aussi di. nuy wax autorité ni si département de Koungheul buñ si limee ku mel ni le maire Badara Ly ak présidente du conseil départemental tous les maires jaaree ko si ki nga xam ne mooy seen coordinateur di seen président le maire Madiama Seck doon président association des maires du département de Koungheul ñoo ngi nuyu autorité yëpp yi nekk si aussi tamit di nuyu tamit honorable yi nekk département bu Koungheul yëpp monsieur Arona ñu ñëw ci commune bu Saly Escale nga nekk responsable politique nekk ci commune Moussa Escale tey jii est-ce nga doon ñëwoon ci lu gàtt rek ci liggéey ci biir commune bi ak euh, seen taxawaay ci biir commune en tant que responsable politique nga jiite tamit mouvement taxawu liggéey ne foofu mais aussi tamit ñëw ci mouvement bi nga xam ne ànd jàppale Aliou Badara Ly 2024 mais avant ñu ñëw ci mouvement yooyu rek ban taxawaay nga am ci commune Moussa Escale en tant que responsable politique. merci Daouda comme ni nga waxee noonu. ci walu politique ci commune Moussa Sali Escale ci suñu taxaway ci bit euh benno bokk yakar ñu commencé won ko depuis 2012 nak ñun ak le président de la République Macky Sall euh Antoine Tiek euh dafa Ousmane Tanor Dieng yaakar na ko xam xam ko ci bit benno bokk yakar mu nekkon ci personne bu amone solo dañu nekkon ak mom finalement mo won ñene ñu Macky Sall li na ci man mo na ci mom mm -hmm.

di am ay taxaway yu am solo yo xamanteni mom moom lañ seq ak askan wiñ fa nekkat euh, yalla def ñu bokkon ci équipe municipale bi nga xamni ño ñom ñoom lañ ci 2022 euh, bi euh la maire actuelle di dirigé El Hadj Sader Dieng ñu remplacer fo ñu bokk ci maire sortant yi nekkon ci équipe bobu dal liggéey euh, yaakaar naa ku wax équipe bobu wax taxawayam ci Saly Escale ci ay réalisation ci ay bilan bo xamanteni bayina ko fa baye ko fa tay maire bi nga xamne tay moñu ya, remplacer ñu na ko wax bilan bobu tay pour ñu ci doon delu ci yaakaar na dina jël ay waxtu yu waxtu mo xam kan secteur bo meuna a laal rek équipe sortant bi baye nañ ko fa secteur bo meuna jël buñ duggé ci secteur yëpp dañ ci wax li nga xamanteni maire bi fa joggé ko amna ci taxaway bu rafet bo xamne da ci àndoon ak ñun eh, yaakaar na kenn jëppi wu euh xeyna ci manké mbir mu ne nguur moom. kan nga leeral ko kan la. waaw El Hadj Makhari la ñu andon ak El Hadj Makhari Mbaye moo maire sortant. yàggoon a am taxawaay nag ba léegi mu yàgg am taxawaay ci benn bokk yaakaar ci commune bu Saly Escale euh, ci parti bi depuis yàgg na mu nekk di jàppale benn bokk yaakaar bi ba ci élection locale yi passé deux mille vingt deux bi ci lañ ko remplacé mais secteur boo jël daal ci wàllu développement pour commune secteur boo jël laal na ci lu am solo loo xamante ni bàyyil na ko fa tey équipe bi ñu remplacé suñ duggee ci biir danañ gën a xóotal wan li nga xamante ni moom moom la def ci ay réalisation boo jëlee ci wàllu ndox commune bu saali Escale yaakaar naa am nay jamono amoon na ci ay difficulté yaakaar naa réalisation am yaa fan ne ci tey ay forage yëpp moom moo ko fa bàyyi boo jëlee lu mel ni saali satu boo bo xamanteni 1979 yaakaar ci lañ def satudo bi do bu gatt la bo xamne presque ne presque mënul alimenter ñaari dëkk tay bo jëlé jëlee satudo ba nga xamne mom la fa bayyi tay li muy alimenter plus de 30 nangam village yo xamne mo leen ko bàyyi bayyi nako fa soo jëlee ci walu santé réalisation ya fa jotani ni tay mom moko fa bayyi ci ay poste de santé yo xamne bu ci nek mu ñu and ak ambulance bo xamne ne dox ci soxla askane fofu ñu dem ñëw di yóbbu malade yi mm-hmm. ci district bu Koungheul yaakaar naa tey maire sortant bi moo ko fa bàyyi. Mm-hmm. soo jëlee ci côté sport mm-hmm. moom moo nekk un maire boo xam ne ci saali c'est une première mu indi budget sport bi subvention sport ci un million franc CFA yaakaar naa ba léegi passé gu ko ba léegi weesoo gu ko ñi ñu fi remplacé ba léegi mënaguñu jéggi barrière yaakaar naa loolu maire sortant bi moo fa indi loolu quoi waaw. jërëjëf ci leeral yi am na solo mais ni nga ko waxee rek ñu ñëw ci ba léegi ci commune bu Saly Escale yow en tant que responsable mais tey jii ak li nga wax ci réalisation yi nga xam ne maire sortant ko mais lu si taxaw du yàgg sax mais lan moo indi taxawaay boobu ba tey jii askan bi jël kii di Maxari Mbaye génn ko ci commune bi indi la gendarmerie ndax manque de compétence am la wala ñàkk liggéey wala lan moo waral loolu ndax gis na ne tey jii bu fekkoon réalisation yi ngay tudd non askan bi mooy seen priorité muy ndox courant yu demee ni ki noonu ak santé lu tax lu tey nii kon tey El Hadj Sarr dana ñu ci bokk municipalité bi. waaw merci Daouda ci question bi lu am solo la xam nga liñ naan bu muus ren dañ la naxoon daaw loolu moo dal askanu Saly maanaam la maire El Hadj Sader Dieng daf fi ñëw yaakaar naa bi mu ñëwee promesse yi nga xam ne moom la joxoon commune bu Saly Escale ci ay promesse la ko tegoon. ba léegi promesse yooyu amul dara lu ci réalisé wu yaakaar naa ne tey askaru Sadio ñoo rëccul seen bopp la fait que ñu génnee El Hadj Makhari Mbaye ci bopp commune hmm. ndax koo xam ne da nga remplacé bi mooy deux ans yaa xam ne ci mu ngi am ci bopp bi ak équipe bi mu àndal boo xam ne parce que dañu wax ne incompétent lañ def ci wàllu réalisation wala ci dara. loo xam ne ay promesse la yu jaaroon diggante ñoom ak askanu Saly hmm. ci commune bu saali tey promesse yooyu amul dara lu ci réalisé wu. li ma la wax léegi ci côté espoir nga xam ne ba léegi mën a gu jéggi barrière un million de francs CFA ci subvention nga xam ne moom la fi la maire sortant kon ba léegi mën a goo jéggi barrière espoir waxuma la di jéggi barrière loo xamante ni ay réalisation ci côté école éducation yeeg CM wala leneen parce que tey lu mel ni boo jëlee Koumbi ja yaakaar commune bu Sadio Koumbi ja Socé Koumbi mm-hmm. mais tey boo xoolee suñu doom yi dëkk ci commune bi euh, li ñuy ñëw Koungheul ak li ñuy ñëw Koumbi ja dafa métti parce que amuñu moyen boo xam ne moo leen di defal transport pour yombal seen dem ak seen dikk faciliter leen seen wàllu jàng loolu ba tey yaakaar naa ne barrières yooyu kenn mënu moom mënagu ko jéggi kon yaakaar naa amul benn réalisation bu mën a présenter tey bu mu tekki loxo askanu Saly moo tax tey askanu Saly au niveau de Benno Bokk Yaakaar ñun ñu am jaaxle ak njàqare pour nag mën a toog taxaw wax li nga xam ne mooy kilifa yu dëgg ci commune bu Saly ndax commune bu Saly su fekkee réalisation yooyu yëpp mu leen doon promesse mm-hmm. amu ko munu ko te aussi réaliser wu ko kon il est temps nag ñun responsable politique yi nga xam ne dañu yàgg nekk benn bokk yaakaar nekk fa ba tey euh, ñu toog wax askan wi li nga xam ne mooy erreur yi nga xam ne dugaloon nañ la ci yeneen yi bari leen cee dugal mooy lu mel ni opposition bi parce que tey ñu ngi dem ci élection présidentielle élection présidentielle lu sérieux la bokkut ak élection locale malgré élection locale lu sérieux la mais bi gën a sérieux mooy élection présidentielle loolu moo tax nag mouvement bi ñu àndal nag nga xam ne mooy mouvement ànd jàppale Alioune Badara Ly ci 2024 bi au niveau départemental yëpp dañ ko bëgg couvrir pour jàppale ko ndax xam nañ moom moo nekk un maire boo xam ne dañuy wax ne maire Koungheul la mais Koungheul daf ko abal département bi yëpp parce que li fi nekk lu naqadi parti bi wala lu naqadi Benno Bokk Yaakaar moo ciy taxaw pour mu saafara un responsable la boo xam ne day rassembler mais lu diffise quoi Euh, maire la boo xamante ni lu am social ci wàllu département bi da nga gis loxoom da nga ciy gis taxawaayam da nga ciy gis détermination da nga ciy gis engagement moo tax jeunesse bu Saly Escale. Euh, ak jeunesse bu département bi yëpp. ak ñi nga xam ne ñu jiite nañ leen doon ci liggéey nag lu yàgg ba tey ñu taxawal ko pour ànd jàppale Alioune Badara Ly ci 2024 bi mu jàppale le premier ministre Amadou Ba suñu candidat di candidat coalition benn mbokk Yaakaar président de la jël confiance teg ko ci kaw Amadou Ba yaakaar naa loolu Sénégal yëpp ferte la pour ñoom kontaan nañ ci te aussi dañ koy jàppale mais ñu am ci benn njaaxle tuuti boo xam ne bokk na ci suñu sortie bi ñu def tey li tax ñu am ci njàqare mooy la maire actuel bi nekk Saly dafa def ñaari sorti bu ci ne wutee ak moroom mu xaw ñu jaaxal benn bi dafa ànd ak le président de la république dem États-Unis def communication ne dañu jàppale Amadou Ba dañ ko jàppale dinañ gagné mais dina métti. ñu mm-hmm. seetaanaat beneen vidéo mu ne muy dal ci kaw Amadou Ba di suñu candidat mm-hmm. ñu xool nag position boobu moom mu am waaw du waafal déet la au niveau de benn Bokk Yaakaar ñu teel a alerte ñi nga xam ne ñooy kilifa parti bi responsable dina ci département bi mm-hmm. mais particulièrement suñu kilifa la maire Aline Badara Ly pour ñu jël seen responsabilité ci parti bi xam bu baax xàmmee parce que ñaari discours yu wuute ci même temps ci même heure dañu xamul lan moo ko waral parce que moo na ci benn bokk yaakaar ba pare maye bopp rocci lami loolu askanu Saly ñoo ciy loroo te ku ne xam ne réalisation yi am Saly yëpp le président de la république moo bokk yaakaar bi nga xam ne mooy candidat de l' pour Sénégal. jërëjëf monsieur Arouna dina ñëw foofu ci point boobu ci ñaari sorties yi la maire def mais avant ñooy tëb étape boobu dina ñëw si le mouvement bi nga taxawal ànd jàppale. Aliou Badara Ly le maire Aliou Badara Ly nekk maire bu commune bu Koungheul nekk responsable du département bi a mais pourquoi mouvement ànd jàppale Aliou Badara Ly alors que mouvement ànd jàppale Makhari Mbaye amul mouvement ànd jàppale jàppale Badara Ly da nga nekk si commune bu Saly Escale Aliou Badara Ly nekk le maire hmm. euh, dañu yàgg ak moom. Mm. benn avant may ànd ak ci politique su lappalaa politique Alioune Badara Ly laa njëkk xam ci département Koungheul ci wàllu politique parce que jikkoom bay ma ci wàllu politique mais détermination bay ma ci wàllu politique engagement bay ma ci wàllu politique vers le président de la république monsieur Macky Sall parce que am na discipline de parti Alioune mënoon na ber làmbu boppam wut comme ñëpp def comme ñëpp mais dafa am discipline de parti am kilifa ci parti kilifaam di président de la république mais kilifaam di premier ministre Amadou Ba mu yàgg liggéeyal parti bi yàgg sonn parti bi boo gisee commune yi yu ci bari wóolu ko mooy dafa am njëriñ pour commune bi le maire social foo ko soxla day taxaw def ndimbalam def wàllam def soutien def léppam ci wàllu commune yëpp nag particulièrement commune bu Saly li ma gën a maîtriser mooy dafa am commune bu amul lenn luñ ko fay tuddee loo xam ne taxawu ci bu dee ci wàllu jàkka yi bu dee ci jumaa yi bu dee ci sport bu dee ci regroupement famille mooy mbootaay muy la jeunesse amul benn secteur booy jël boo xam ne Alioune Badara Ly accompagné wul leen di leen ci jàppale di ci def dooleem guddi ak bëccëg suba ngoon te yaakaar naa ne loolu la ñuy defee responsable politique responsable politique da ngay am njëriñ pour askan bi di leen jëriñ mais doo leen jëriñoo mais li dal tey ñun saali nag ka fa boo gisee amuñu mouvement pour moom mais maire sortant actuellement ñu ngi koy gunge ci wàllu communal di ci xalaat ak moom pour suba mais actuellement dañu jëm ci élection yu sérieux yu yaatu mooy la élection présidentielle mhm. kon élection présidentielle yaakaar naa la maire départemental moo ko mën a wuuf moo ko mën a couvrir moo tax ñun suñ mouvement bi juddu pour taxaw pour jàppale la maire Alioune Badara Ly mu mën a jàppale la premier ministre candidat benn Benno Bokk Yaakaar ci commune bu Saly mais rawatina département bu Koungheul parce que euh, bu commune Saly hmm. benn mosu ko perte benn mosu ko perte mais élection yi ñu dëgmal li tax ñu nii alerte mais bu ci Aliou Badara li dugalul loxoom dañuy perte élection yi ci perte bu garaaw hmm. loolu moo tax nag xoddeeku balaa ngay lakkale commune bu Saly nag ñun dañ ko porté am fa suñ kàddu di liggéey ak nit ñi yàgg liggéey ak ñoom kon nag bu ñu bokk ci magum xamoon naa ko mais dañuy bokk ci magam waxoon naa ko pour balaa ñu yegg ci yenn yi ñu xam ne waxoon nañ ko jël ci suñuy matukaay mais suñ ko informé ku mel ni Alioune Badara moom nit la koo xam ne lu bari def koy réglé ci département bi dana mën a taxaw ci yooyu teel lu laaj ñu yeggee ko premier ministre. candidat Benno Bokk Yaakaar lu laaj mu yeggee ko le président de la république dana ko ko yeggee pour li nga xam ne ay moyens la ak ak engagement ñu jël mu ci Benno Bokk Yaakaar au niveau de Saly. parce que tey maire bi fa ne discours bi mu mujj a def nii moo jaaxal commune bu Saly yëpp. parce que discours la boo xam ne yow bu dee yaay nekk le coordinateur le pour nga piloter élection présidentielle da nga am double langage maanaam yow amoon nga problème personnel ak sawa waa commune actuellement kon soo demaatee. waaw foofu dinañ si ñëw problème commune boobu lan lan mooy lan mooy ban problème la le maire am ak population bu Sa bu Saly ndax fi invité sama xel léegi la ki nga xam ne mooy Ibrahima a Dieng wax na ne maire bi li muy li muy liggéey askan bi ñu ngi si gis seen bopp. li muy liggéey li muy def si commune Saly Escale tey yow tudd nga problème bi nga xam ne le maire am na ko population wu Saly loolu lan la ban problème la nan nan lan mooy seen problème na gis naa ne eh, mu ngi mu ngi la bonne problème bi. waaw loolu yéen ngeen ko gis mais ñi dëkk Saly ñoom gisuñ loolu ñi dëkk Saly li tax gisuñ loolu mooy dama ne maire bi kuy bu dee promesse dañ koy réaliser moom ay promesse am euh, réalisé gu ci benn li ma la waxoon sànq ne la barrière même ci cadre sport boo jëlee bi nga xam ne moom la jeunesse bi utilisé rek ci sport bi gën a yomb suñ subvention maire sortant bi bàyyi ko muy un million ba léegi barrière boobu mënu ko jéggi kon yeneen barrières yi nga xam ne moo gën a difficile yooyu barrières yooyu amul pour résumer ko rek amul benn barrière boo xam xamante ni mën na ko ci jéggi te li doxoon diggante mook askan bu Saly particulièrement jeunesse bu Saly ñoo ko porté woon gëmoon ay promesse am gëmoon ay waxam gëmoon ay engagement yoo xam ne yaakaaroon nañ ni bu ñëwee dina ko mën a réaliser parce que lim bokk na ci lim daan wax ne kuy naanandoo kafe la ak président yëpp ci Afrique kon kooku dañ doon am yaakaar pour moom yaakaar ne naqaru saali boo jëlee ci wàllu éducation nga jël ci wàllu ndox nga jël ci wàllu santé nga jël ci sport nga jël ci culture secteur boo mën a jël rek dañu jàppoon ne bu ñu amee maire boo xam ne day naanandoo café ak président yi ah dañu jàppoon ne bu ñëwee rek suñu coono jeex. mais est-ce que loolu newul slogan boo xam ne da ko doon politiquer mais slogan boo xam ne tey jii yéen da ngeen ko doon jël aw sérieux ngir ngir tabb ko maire wala loolu dafa nekkoon slogan boo xam ne tey jii da ko doon ngir bëgg am maire mais ne loolu mais taxul ñu si fal naan noo kafe ku nekk loolu taxul ñu fal maire kon bu fekkee loolu ëllëg yéen vous êtes responsable yéen population Saly Escale. waaw njuumte njuumte jàmm lay dal. te aussi ku na xam politique ñun ci suñu culture fi ci Saalum li bal Dakar presque bal fi ci commune bu sali commune bu sali dañuy faral di japp ni ci kan motax bo maîtriser wu commune bi na xamo réalité bi fi nek moy bo porter politique bi am Dakar nga porter ko indi ko commune bu sali da ngay am problème ak wa commune bi mooy ñoom dañu japp que ne lepp lo xamne dang ko promesson ak ñom ci ay réalisation yo xamne dañ ko dëgmal te mu nekkon seen priorité soko matalé wu nek dañuy japp que ne yow respecté woo sa kan nit bu respecté wut kàddoom dénk ko dara moom foofu lañ yegg ak maire bi moo tax tey boo jëlee ci regroupement femmes yi euh, am nay jamono da leen daan wax ni femme regroupement bu ci ne dinaa leen utal récépissé jox leen financement tey boo demee ci commune Saly femmes yëpp ki jooy amul benn tey boo jëloon sa micro territoire dugg ci dëkk yi amul benn regroupement booy gis mu am récépissé ñu ne maire bi la ko jox bi gën a yomb récépissé mais am na ay financement yi fa dugg récemment bu passé wul na financement waa xaw financement ay waaw information bi circulé woon loolu tey boo ko jëlee ci commune bu Saly kumba ndey kumba am ndey la ak kumba amul ndey. mais am na mais financement yi ñëw na. waaw financement yi ñun. Hmm. xam nga ñun bu fekkee ñi ko indi di ko piloté porté ko dañ la koy nëbb yëg rek nga ci am ak rumeur ndax bu fekkee. mais bu fekkee yow amoo ay mouvement femmes yoo xam ne dugaloon nañ seen papier. yow buy ñëw doo ko yëg wala yow dafa am ñoo xam ne yow dugaloon ngeen seen papier si financement yi waaw wala déet mais fekkee yow dugaloo amoo si benn kii yow tey jii ñëw fa ak ñàkk a ñëw fa yow ñuy obligation ci yow. boo déggee ma wax la kumba am ndey ak kumba mhm. mooy ku ne xam na ni mu ko porté ak ni mu ko doxale financement yooyu par numéro rek lañ ko déggee. Mhm. mooy euh, ku ko ak moom daal ci wàllu regroupement ci wàllu mbootaay. Mhm. nga xam ne. seeni jigéen lañ danañ fexe ñu jël vers information man a yegg ci financement bi le fait que yow bala nga koy yëg ñu ne la financement yi bari wutoon mais am na ñu ko jot a jël mais bari xam nga kon loolu dèjà mën ngaa jël ne parce que kenn jotu ci. parce que li wax ni boo demee ci femmes incha yi ne nekk ci commune bu Sagne ñoom ñoo ko waxal seen bopp mu dégg te ñun ñu ngi ci terrain bi di xam li xew ñi ngi jëflante ak yi ñi ngi jëflante ak SONES bi. ñuy xam li xew bu baax diggante ñoom ak maire ci wàllu financement boobu ci wàllu foncier yenn ci fa ay femmes xëy na mën nañ ko jot mais li ëpp ci jigéen ñi commune bi daal gisuñ ci seen bopp kon nag ñoom il faut ñu ut leen porter seen i kan pour wan askan wi ne leen parce que dañu nekk ci monde communication boo xamante ni dina indi éclairage ci askan bi pour xam ne dëgg-dëgg financement yooyu président de laal li mu ngi def effort yu man ci DER ci foncier ci lépp. mais femmes yu saani gisuñ seen bopp tey ci financement yi nga xam ne dugg na ci commune bu saani niñ ko mën a waxee ci kaw ci gàttal daal mooy femmes yi nga xam ne ñooy majorité ci commune bu saani tey dañu dañu am déception bu baax ci maire bi nga xam ne moo dox euh, nekk interlocuteur entre ñoom ak état bi ngeen jëf loolu kaddu nag ci di monsieur Arona Touré nekk ci commune bu Saly Escale nee na financement yi ni ko maire doxalee transparent nekk ku mbaamu ndey ku mbaamu ndey loolu nag monsieur Arona Touré di la jóge kàddoom la li ñu ñëw rek mooy si ñaari discours yi nga xam ne wax nga ne maire def na ko discours bi njëkk ñun am nañ ci aperçu mooy bi nga xam ne génn na def tournée ak le président à l'extérieur boobu dégg nañ ko gis nañ ko boobu li ñu ci wax tamit dégg nañ ko mais deuxième euh, kii bi nga wax sortie bi nga loolu fan la ko defee ak fan la ko waxee parce que ñun amaguñ ci ba léegi ñëw mu gën leer. waaw seetaan naa ko vidéo bi seetaan naa ko euh, muy wax ci ne muy wax attaque Amadou Ba yaakaar naa mu ngi ko defee 7 benn télé de la place xam nga ngeen jégal ma nag bu fekkee noonu bi c'est pas grave gis naa publicité bi moo waaw mu ngi ko waxee 7TV j'espère que ne wane na candidat Amadou Ba nekkul rassembleur hmm. kon suñu tànnee sa discours bu njëkk hmm. nga wax ci candidat Benno Bokk Yaakaar bi wane ne président de la république dafa ñëw Amérique dajeeg femme yoo xamante ni ñoo fa nekk ci diaspora bi euh, nekk ay responsable politique nekk ay sympathisant président de la république mm. mu di leen mu def communication entre ñoom ak le président di leen rassurer wane ne leen Fouta 4000 électeurs yoo xam ne dafa absenté woon ci élection yi passé fexe leen 4000 électeurs yooyu rejoindre Amadou Ba parce que mooy tànneefu président de la ndax critères yi nga xam ne ñu ngi ko doon seet ci coalition Benno Bokk Yaakaar yépp Amadou dafa critères yooyu yëpp dafa dajee ci moom kon benn Bokk Yaakaar yëpp dañ ko jox loxo jox ko bopp jox ko lammi bañ a rocc dara jël engagement bu ma mu amoon engagement boobu ci kanam président de la République mais finalement mu def beneen déclaration ci 7 xam ne wane na ne Amadou Ba du du rassembleur nekkul koo xam ne dafay dajale askanu Benno Bokk Yaakaar wala askanu Sénégal daal dinañ bàyyi xel ci moom wala dinañ am ci moom xam nga loolu dafay déstabiliser ñi nga xam ne ñoo gëm parti bi gëm coalition Benno Bokk Yaakaar moo tax ñu am tiitaange daal au niveau pour ñun nag ñi nga xam ne mouvement la buy jàppale Aliou Badara li ci élection yi ñu dégg mooy deux mille vingt quatre bu jàppale le premier ministre candidat Benno Bokk Yaakaar ñu fas yéene gagné dès le premier tour incha allahu taala yaakaar naa Aliou Badara li mooy saafara si nga xam ne ci département bi moo fi nekk koo xam ne mouvement bi am na yaakaar ci moom. tey ak ëllëg pour que mu taxaw benn bokk yaakaar pour benn bokk yaakaar gagné élection yi remporté ko dès le tour. parce que Saly nag benn li ma ko perte. suñ ko naree perte ñu ngi ko nar a perte ci maire boo xam ne fan la jëmee direction bi nga xam ne mooy liñ dëkkoon bi nga xam ne équipe municipale ba fa moom lañ jël finalement loolu daal mooy li nga xam ne moom la waa Saly wax. jere jërëjëf ci kaddi mais bu ñu gisee li li le maire waxat ci sa TV nga wax mais du moom moko ñëk wax excel tay jii li mu gisoon ak actuellement ni li mu gis moom mo wuté mo taxat waxat nak gis nañ ko melni ma mbay Mbaye nek ministre taxaw publiquement wax né Amadou Ba du candidat soutenir ko tay jii excel lolu dafa nek deuxième bo xamné tay ki di le maire El Hadj Sadar Dieng wax. mais newul ki ko njëkk wax ndax mun nañu wax ne te jii Amadou Ba amul benn élection boo xam ne gagné ci localité exo loolu dafa moom tamit mu am yàqare ngir alerter tamit ñu gën a jël seen matuwaay en tant que benn bokk yaakaar pour bañ a perdre élection présidentielle. waaw bu dee ci côté contexte boobu la ko waxee ku mel ni ku mel ne Mame Mbaye Niang le ministre Mame Mbaye Niang parce que amul base politique njëkk na song Dakar. ci élection yaakaar naa municipal euh, municipal wala ci élection municipale yi njëkk na song Dakar ku ne xam ne lam lam jëlee Dakar parce que dafa defoon liste laaj Dakar fa mu tollu Dakar waaye yëpp Dakar waaye wan nañ ko Sénégal kon su fekkee dafa sukkandiku ci candidat koo xam ne le ministre boo xam ne amul base politique bu ci sukkandikoo moom su fekkee yaakaar na base politique am ci commune bu Saly Escale te li muy wax di dëgg wane ne moom base politique am mu ngi ko téye ko contrôlé warna man outé discours ak le ministre Mame Mbaye Niang parce que nak Benno Bokk yaakar yamul concentré wu ci benn ministre bo xamné day canaliser Benno Bokk yaakar pour empêcher ko pour mu baña dem élection pour mu baña remporter élection yi su fekkee Mame Mbaye xëy dafa am problème personnel ak Amadou Ba ko mo koy réglé diggante mook Amadou Ba mais du concerné Benno Bokk yaakar kon lool waru mëna a maire bu Saly Escal pour mu mëna li ñuy wax walé bañal ak Mame Niang pour que mu blâmer Amadou Ba lo xamné loolu blâme yi nga xam ne teg na ko ci kaw la premier ministre candidat benn Bokk Yaakaar bu dee kàddu Mame mbay moo tax mu def ko moom kon assuré wul commune am ne que la mu waxoon président Amérique ne ko assuré naa kon dama jàpp ne assuré wul commune am moo tax mu delluwaat fekki na ministre Mame Mbaye Niang ci même discours. te Mame Mbaye yaakaar naa nag ñun rassemblé lañ toll pour dajale ko du ñu xeeb kenn. xeebuñ benn électeur du ñu xeeb Mame Mbaye du ñu xeeb keneen mais suñu sañoon mu delloo si xelam delloo si sago ànd ak la candidat Benno Bokk Yaakaar. monsieur le premier ministre Amadou Ba. loolu ko Benno Bokk Yaakaar yëpp di ñaan parce que politique bi fi mu toll moom essayé na boppam ba génne woon horizon deux mille trente cinq boo ko xoolee deux mille trente cinq yaakaar naa ci def euh, collectivité locale yi di Sénégal benn collectivité la ci gagné yaakaar naa j'espère que muy saay loolu la loolu la horizon deux mille cinq gagné ci commune yi nga xam ne ñoo nekk euh, fii ci Sénégal. Sénégal waaw mu nekk benn commune boo xam ne moom lañ ci gagné. kon mën nañoo wax ne le ministre Mame Mbaye Niang ci nattuwaay ci wàllu politique dëgg-dëgg waru ci mën a tiital Amadou Ba kaa ñu ànd nag moo ëpp solo moment biñ toll nii pour àndandoo songu liggéey bi fas yéene jëlee fi opposition bi nga xam ne euh, nekkuñ fi la la de serveur lañ fi nekkee mooy raxas bopp nit ñi dugal ci leneen loo xamante ni wutee na ak li ñu xamoon Sénégal mu dee démocratie démocratie ak anarchie bokkul mooy démocratie da ngay wax sa xalaat bàyyi keneen mu wax xalaatam ñu respecté institution yi respecte république bi respecté li nga xamante ni mooy suñu kilifa diine yi ak suñu kilifa aada yi mm. Sénégal noonu la yàgg a kon jikko jooju nga xam ne le président de la république moom la fi suuxal mm. ba léegi mu wëlwali ku dem discours bu am solo te yoon ma yoon ko mu mën a posé candidat mu natt Sénégal ci wàllu jikko ci wàllu ngor ci wàllu kaddu mu wëlbati ko jël lépp teg ci suuf wane na moom mënoon na posé troisième candidature doon mm. te yoon du ko ko tere mais joxe na kàddoom ba pare kon dina respecté kàddoom mm. jël Sénégal delloo ko waa Sénégal discours à la nation bi nga xam ne def na ko ci fin d'année bi mm. discours boobu discours bu ñu apprécié la discours kilifa la discours al nit la ko xam ne nii ku bàyyi xel ëllëgu Sénégal la mu wane ne moom day bàyyi Sénégal ci jàmm ak salaam mais du ko bàyyi nag ci loxo koo xam ne nii bu ëllëgee Sénégal day dugg ci guddi goo xam ne ni duñ xam duñ ci jóge ko jërëjëf euh, monsieur Touré ci kàddu yi foofu lañ daanele rek bala ñoo tëj émission bi euh, ci ñu ñëw si parrainage yi ñu toll actuellement ni vérification dossier wu ñu gis ni tey jii li tax ni ñëpp xel yi xaw a si Amadou Ba mooy bi ñu nekkee si parrainage ñoom publiquement déclaré nañ ne am na deux millions et quelques parrainage te buñ seetee deuxième euh, régime Macky Sall si élection législative bi locale législative yi locale yi électorat am day gën a wàcc tey ñu dem si parrainage ñu gën wax ne am na deux millions et quelques parrainage bi ñu demee si vérification yi moom génn jàllewul si parrainage fi mu jàllee mooy élire ko maire yeeg yi ndax loolu tamit lu lu lëndëmal xelu askan bi tax ba tamit yenn ñi ngeen ne si benn bokk yaakaar ñàkk confiance kii ci Amadou ndax loolu mën nga si ay quelques waaw loolu dinañ ci mën a tontu parce que euh, nga jaar ci parrainage bi boo xoolee li ci Benno liggéey ci yaakaar naa région yi fi nekk ci Sénégal ak département yi fi nekk ci Sénégal yépp Benno Bokk Yaakaar génn nañ wàcc ci terrain bi wax ak askan wi dugg ci biir askan wi wax ak ñoom laaj leen seen parrainage askan wi ku leen di xaar ci jàpp ne ñenn rek ñoo leen moom bàyyi ñenn da ngay nax sa bopp mooy Benno Bokk Yaakaar ba tey la mu téye woon daf ko téye woon ndax élection locale élection législative élection présidentielle réalité yi du benn élection présidentielle kilifa gi ci boppam la ñuy delloo confiance remettre ko Sénégal mu téyewaat ko ci ay loxo yu sell ci développement ci yërëm askan bi ci bàyyi xel askan bi ci sécurité askan bi loolu la président de la république bi nga xam ne mooy président Macky Sall jël critères yëpp teg ko ci kaw Amadou Ba kon yaakaar naa Amadou su jëlee parrainage élu yi déposé ko ci conseil constitutionnel loolu dafa yombal yoon pour bañ a indal bañ a yàggal vérification. sa xamuloon na bu demee si si si vérification parrainage du am du ëpp doublon comme yeneen candidat yi moo tax ñu vérifié woon ko loolu. non non parti Benno Bokk Yaakaar buñ ko waxee parti la boo xam bu organisé wul bu am yaakaar naa li ñuy wax mat bu day sëkk la pour vérifier yàgg nañu def parrainage di ci jàll sans problème kon yaakaar naa kooku kenn du ko jàngal problème bu parrainage ak problème bu doublon boobu amuñ ci tiitaange. mais rek pour comme candidature yi dañu dem ci deux cent et quelques candidats vérification ci conseil constitutionnel ba day jël temps boo xoolee yeneen candidats yi def nañ ko ñi koy coow yëpp dañu ko amul mais ku ko amoon tey foofu ngay jaar ku ko amoon rek da ngay jaar ci parrainage élu ñu vérifier ñu mu gaaw très rapidement sans problème ñi ñiy coow yëpp tey dañu wóor na buñ duggee ci askan wi dañuy bëri ay doublon duñ mën a jàll moo tax tey coow li bëri soo xoolee tey ñiy wax yëpp. xam nañ ne parrainage élu lañ amoon mais suñu amoon pré euh, parrainage moom la ñuy déposé ci conseil constitutionnel. Sonko moom la déposé. Sonko dafa dafa déposé président euh, parrainage élu yi mais yaakaar naa pare euh, élu yi moom ci wàllu kii Habib Sy lañ jàppale mais moom bi mu koy déposé wóor la ko ne day déposé mais balaa nga naan naam da nga fiy nekk mooy Sonko lu ci bari daf ko daf ko arrivé ci biir carrière politique am mu xam ne du jàll. manipulation yooyu mu doon def ci mbedd bi mënu koo def conseil constitutionnel muy jàll. conseil constitutionnel loi moo ko fa teg yoon moo ko fa teg ñuy saytu lépp loo xam ne ni indi lañ ko fa lépp loo xam ne dañ ko indi pour manipulation yi dañ koy jël tegee de côté. Sonko li mu déposé woon xamoon na ni askan bi li ñuy wax ne bu fekkee conseil constitutionnel askan la ñu leen nekkal yoon lañ fi nekkal tey jii Ousmane Sonko bu fekkoon casier judiciaire dañ koo condamné ci casier judiciaire bu demoon conseil constitutionnel dañ koy dañ koy. lekkale ci casier judiciaire mo baaxul mais nit koo xam ne mu ngi biir kaso amagoo benn condamnation sa casier judiciaire mu ngi vierge loolu tey askan bi loolu dafa lëndëm seen xel loolu ci réew moo xam ne yaa ngi ne réewu droit la réewu yoon la tey jii bu fekkoon sax dañ ko dindi ci cadre casier judiciaire am parce que dañ ko condamné mais loolu nit ñi mën a wax mais fépp fu koy demee rek dafay nekk loo xam ne dafay politique dafay dafay dafay kii si lëndëm seen xelu askan bi loolu tamit askan bi tamit. xam nañ seen xel di xalaat xam nañ ne tamit am na yoo xam ne bu ñu ko gisee dana xam lan lan demal seen xel. Euh, moo ànd ak euh, stratégie politique mais teg ko nag ci gentleman teg ko nag ci démocratie. ci gentleman waaw teg ko ci cadre de démocratie mooy Benno Bokk Yaakaar bu cuune te président de la république nga xam ne moom lañ dénk réew mi day veillé réew mi di ci bàyyi xel pour li ma la waxoon ci kanam ne la day delloo réew mi ëllëg ci ay loxo yu set becc lolo tax sonko yaakaar na man douma ma sama xel màcc ci walu droit mais moom xamna bu baax li nga xamanteni moko don xaar au niveau conseil constitutionnel ci dépose ma candidature mbok ndax até ma mo ma mbay euh juriste yëm dañ né bu até bi daano da koy gëna a pour mu baña jall ben avant lolu sax yaakaar na fekk na conseil constitutionnel tégué dossier da côté la tax ñu tégué ko da côté nag ñoom ñoo ko xam man vérifier wu ma dossier maîtriser wu ma waaw jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal mbokk internet de Firi Info. waaw bala léegi li ma bëggoon daanale Daouda. Mhm. mooy damay sant ku maire ni maire Alioune Badara Ly du ñu ko bàyyi mukk di sant. di ko gërëm ci taxawaayam ci département bi ci taxawaayam particulièrement ci commune bu Saly Escale ci taxawaayam ci ñun ndax responsable politique mënul fonctionner mënul dund sans ay moyens soo xoolee moyen de transport nga regrouper nit ñi ay doomu aadama. war leen dundal war a échanger ak ñoom seq ak ñoom ay tranga ku ne xam ne la cay dem entre responsable politique ak ay mbokki politiciens am yoo xamante ni ay militants lañ ay sympathisants lañ ñooñu yaakaar na képp koo xam ne dafa am taxawaay boo xamante ni pour lu ko jàppale responsable boobu lu ko jëmale kanam daf la ñor yaakaar naa cant ak ngërëm rek lañ ko amee. ba pare ci commune yëpp l' ensemble département yëpp amel nañ ko cant ak gërëm ñu ngi koy souhaité bonne heureuse année di ñaanal guddu fan di ñaanal wér di ñaanal suñu bop mais di ñaanal nak groupe firi info bu baax bi nga xamne ne nga jité ñaan yalla def ci kër gi barké yalla def ci xéewal personnel bi yëpp yalla sàmm arlen li nga xamne moy mooy sa yéene ci département bi yaakaar na ñun ñëpp xam nañ sa liggéey mi nga xamne non nga koy doxalé ci walu maandu di ci yémalé ñëpp ci walu sérieux ba nga xamanteni ni képp ko xamne amna communication bu wara war digënté mo askanam xel mi day dal mu ñëw firi info jallale fi li nga xamanteni moy ay information jallale fi li nga xam moy ay xibaaram kon nak duñu man lu sant la gëreem ak sa personnel bi ngay liggéeyal yëpp am nañ contentement bu baax ci groupe bi di la ñaanal yewit it jamm ak salam année xéewal ak barke ak sutura yalla bo ñu ko defal ñun ñëpp élection yi ñu dugg ci ak bismillah génn feeg alhamdulillah benn bokk yaakaar remporté ko bu baax té nak alim Badara liñ wax rek bu mu bàyyi commune bu Saly ndax su ko bàyyee commune bi dina perte élection yi te mosu ko perte. wasalaamaaleykum wa rahmatullah. jërë ngeen jëf mbokk internet fii pour loolu mooy seen eh, émission sama commune ba légui ñu nekkoon ci commune bu Saly dalol daloon kii di ci Arono Touré nek responsable politique kon lu def rek di leen jox beneen numéro ci benen plateau ak ci benen commune ba beneen yoon dé jaajeufal bu baaxa baax dé remercier bu baax. lan moy sax cadeau bu mujj. waaw cadeau bu mujj comme niñ ko tayé rek la won moy hmm. sante commune bu Saly Escale. ndax koo xam ne foo laajee ñu jox dafay laaj nga di leen sant te ànd ci wàllu politique depuis 2012 que ñu ngi jàppale benn bokk yaakaar li ñuy lancé comme appel di fa tëjee mooy nañu continuer seen jàppale bi ci benn bokk yaakaar ndax benn bokk yaakaar réalisation yi nga xam ne mu ngi ko def ci commune bi dafa bëgg di ko continuer ni tali bi nga xam ne moo jógee ko Koungheul dem Makoboy yaakaar naa ne loolu. lu rëy la loo xam ne nii bu amee incha allahu taala saal yëpp ciy jëriñu saal yëpp ciy bénéfice kon ñuy tëjee loolu rek di jox ñëpp rendez-vous élection 2024 le 25 février 2024 incha allahu taala ñu di élire suñu candidat dès le premier tour ñaan yàlla boole defal ñu jàmm ak élection yu seen bi wasalaamaaleykum wa rahmatulah jërë ngeen jëf ñu ngi jaajëfal ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm suñu caméraman day technique bi ñu